dal leen ak jàmm seen seen bi di seen njëriñ TV Sénégal kii di Barthélémy Nin tey ginnaaw ba demee ca Bakel ngir soutenir kookee di Bougane Gueye Dany ca biir tribunal ba nekk ca Bakel la foofee la ko force de l'ordre yi daal di fekk daal di koy xamal que ne dañoo jot ndigal la ngir moom ak ñim àndal ñu daal di génn ci biir tribunal bi ndax dañoo commencé di daal di perturber tribunal bi te daa am ay audience yu bëri yu fa war a xew tey Donc tranquillement, fekk ay nit ñi vous êtes chaque fois si je sors dehors je vous dis tout de suite je veux parce que vous êtes, en caméra et on vous écoute si je sors je suis provoqué je vous garantis que vous aurez du travail ok d'accord. Ok, débattre le Ninjas. Il y en un mu de sécurité ak kookee di Thierno Bocoum di génn foofee ci tribunal bi nag daa daan foofee daal di fay fekk ay partisans wu Pastef yu bari yu ko doon xaar ci bunt bi li ni mel moom moo sabab ginnaaw bu mu génnee ci buntu tribunal bi rek ñooñee dañoo tàmbalee di ko sonkoriser kookee di Barthélémy Dias nag ginnaaw ba partisan Pastef yi tàmbalee di ko sonkoriser li ni mel da koo merloo ba tàmbalee di saaga daal di wax ko ne képp ku ko sonkoriser daal di jaar fu ñaaw. kon ñoo ko gisandoo kii di Barthélémy Dias tey ginnaaw ba mu demee ca Bakel ne day soutenir kookee di Bougane Gueye Dany si luñ ko tegoon loxo ci biir tribunal ba nekk ca Bakel la ginnaaw bu kookee di Barthélémy Dias di amal li ni mel au lieu que mu gis ay population yu koy soutenir waaye ñu ëpp ci population yu génnoon dañoo nekkoon di ko sonkoriser ba loolee daal di koy merloo ba kookee tàmbali di dagg ay saaga ndey ndax daa ànd ak ay garde corps yu bëri yu ko doon protéger